ndeysaan Siteu bu anti toj na leen ndeysaan combat spécial de la soirée arbitre bi laaj na Douglas laaj na Siteu bu anti arbitre sifflé na combat spécial mbokk mu nekk journée Petit Production fii ci stade Iba Mar Diop Douglas Siteu bu anti Siteu bu anti moo ñëwoon ginnaaw Douglas moo ñu fee moo ñëwoon kanam Siteu bu anti moo ñëwoon kanam Douglas moo ñëwoon ginnaaw Douglas Siteu bu anti Siteu bu anti daa mel ni jàpp na Douglas jàppul Siteu bu anti Douglas combat bi bu gaaw la may nuru waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw li mu waaw caxabal ba oh Siteu bu anti waay waaye Douglas waay lay laxey la la combat bi de moom bokkut ak yeneen combat yi Douglas Siteu bu anti mais moom Siteu bu anti moom lan la koy imposer nii Douglas Siteu bu anti Douglas Siteu bu bu anti jàpp na ñaari loxo Douglas mi ngi door ci suuf Douglas mi ngi door suuf Douglas Siteu bu anti waaw waaw pàdd na moom Douglas Lirou Diane sama grand suma xarit maa ngi lay ziar jiili la moom Lirou Diane digla sida bu anti digla bu anti Douglas Siteu bu anti Douglas Siteu bu anti Douglas Siteu bu anti bu anti ah Douglas mi ngi door ci suuf Siteu bu anti ba tey dafa bëgg lim mën lim bëggoon doo bëgg a jàpp na ñaari loxo zongale na ko moom Siteu bu anti mais Douglas dafa bañ Douglas Siteu bu anti waaw waaw na ko moom Douglas ñu ngay bëre ñaari xale yi Douglas Siteu anti waaw waaw ko waaw waaw Douglas ko oh Siteu bu anti bañ na waaye ñaari xale yi ñi ngi def kele ñi ngi def lu neex waay ñi ngi day ànd kele waaw waaw wuy sama ndey jëli na waaw waaw Siteu anti da ko yëkkati ba ca kaw door ko ci na waaw waaye Siteu bu anti sa jëli bi nga na jëli bi rëy na waaw waaw oh.